waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw laaj bi am na solo de ci wàllu nilon nilon waaw nilon boobu nga naan boo ko solee dafay dafa lay indil jafe-jafe ci sa yaram lay sonal waaw yére bi nga xam ne nilon la xam nga nilon nag ñu bari dana indil jafe-jafe buñ ko solee surtout jamonoy tàngaay du tisu bu gën ci jamonoy tàngaay waaye même ci yeneen jamono sax temps wu sedd nilon gënul ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ci statistique dañuy faral di wax ne ci chiffres yi ñuy joxe quatre-vingts milliards u yére ñawkat yeeg li ñuy tudde industrie textile yi mooy usine yi defar euh, yi ñuy sol yére yi sol dalañ ko def lañ ko liggéey par at waaw quatre-vingts milliards yére damay ragal sama bopp ko ndax nit ñi macha allah ci suuf bari nañ fi te kenn du génn te solo yére nag yére moom mooy lañuy ñuy gën a jëfandikoo ci àdduna daanaka am ne mën ñàkk léegi su nga yére yi dañ cey ñiy liggéey yére yi dax mi ñu ciy defar yi nga xam ne dafa dañ mooy coloré mooy tax ñu yére yi dem coloré ndax ci cëslaay bi ci cosaan bi du ànd ak couleur ndax huitaine huitaine lañ koy liggéey waaw tissu yi ci ëpp huitaine xëy na dañ ne yenn yi leen waaw waaye li ci ëpp huitaine lay jóge kon yenn yi dañ leen di coloré yenn ñu def ñu def ñu def ci brillant waaw waaw yenn yi am matière buñ koy liggéey ba nga xam ne dafay yomb a paase bu fu waaw am na yëre yi nga xam ne moom daanaka nañ ko liggéey du froissé kon nag nga gis ne yére ñii liggéey dafa am yu ñu ciy yokk yére yi ñu sol ci liggéey bi dafa am li ciy def li ciy def nag li ci produit chimique la moo tax yenn saa yi nit ki sol yére yére bi xasan yaram bi waaw nit sol yére yére bi jox ko ay picc yenn xeetu cancer yi sax yére mun na ko mun na ko mun na ko technique moo tax lu moo tax bàyyi xel la waaw souvent moo tax nga jënd yére nga ñëw xeeñtu ko moom xet li ñuy tuddee fëgg jaay dañ ko da koy am waaye même bu dul fëgg jaay yu bees tàq da koy am nga ci gis yére bi nga xam ne boo ko xeeñtoo dana am xet waaw xet buy wane ne am na daal matière bu ci nekk waaw ci matière yooyu am na lu ñuy tuddee métaux lourds am na lu ñuy tuddee nanomatériaux am na lu ñuy tuddee perturbateur endocrinien te yooyu yëpp ay produits chimiques la ay xeetu suñ koy firi rek mu leer tooke la tooke yi ñu yokk ci yére yi te yooyu nag yére yi ñu tuddee niloom ñoo ko ëppale waaw moo tax musiba la musiba la ci ñi koy liggéey ñiy liggéey yére yi suma boo demee ci industrie yi liggéey yére yi ñi koy liggéey ñoo njëkk am ñoo ci njëkk a yëg ci seen wàllu wér yaram ñiy liggéey yére yi balaa sax ñu ñi nga xam ne ñoo jënd di sol di ci yëg tamit ay jafe-jafe waaw moo tax nit sol na yére ba pare rek ay picc génn ci yaram bi mu naan dama allergie ak lu mu dugg ci fekk yére yére yi ñoo ko jox nit sol na yére ba simmi ko ak kanamam néew yi ndekk yére bee ko jox waaw ndax textile yi mooy yére yi nga xam ne matière boobu lañ ko liggéeyee wala lañ cey yokk yooyu li ci ëpp dafay am ay molecule chimique waaw xeetu tooke yi ñu ciy yokk maam yooyu ñu koy yokk pour rafete ko li ci ëpp ay tooke la waaw te yi ci ëpp baaxuñ ci wàllu wér-gu-yaram waaw day indi jafe-jafe ci wàllu wér yaram waaw moo tax nilon bi daanaka comme que moo ci ëpp tooke te tooke bi nekk ci nilon xam nga nilon matière plastique donc la waaw matière bi ñu defaree mbuus yi mbuus te gis nga mbuus yi ñu ngi koy tere ne ci wàllu wér yaram kon nag kii sol nilon daanaka mbuus nga sol moo tax nilon bon ci yaram waaw waaw matière plastique la bi ñu defaree benn produit bi ñu tuddee polyamide waaw polyamide boobu nag moom produit chimique la bi nga xam ne ñi jàng wàllu wér-gu-yaram yëpp d'accord ci ne d'accord nañ ci ne baaxul ci nit ki waaye baaxul ci aalam gi waaw baaxul baaxul ci aalam gi kon nag nga gis ci ne euh, problème la waaw am na ci yére yi nga xam ne ci nilon ngaañ bi mu lay deg teg du yem ci sa deru yaram waaye dafay jàll ba sa deret indi lay jafe-jafe waaw te ci nilon yooyu te yenn saa ñu fekkoo ci matelas yi ci photo yi ci rideau yi ñu jënd waaw colorant yooyu ñu ci def di ko coloré di pour mu taaral yére yeeg yooyu la ci nekk yépp boo seetloo ay produits chimiques la produit chimique bi ci gën a li ci gën a siiw mooy phtalate ak métaux lourds da koy fekk ci ci ci ci nilon yi moo tax dañuy joxe ay jàngoro en tout cas ñaari produits chimiques yooyu leer nañ ne cancer yu bari dañ koy joxe te da koy fekk ci nilon kon nag nilon moom ku mën nga moytu ko di ko sol yére nilon ëpp naa sol yére yi ci gën mooy coton wala soie soie soie lu am solo dégg naa nag ëllëg bu ñu dëggee àjjana soie la ñuy sol ah na sëriñ si leeral loolu waa ah, mais dégg naa am ku koy wax ndax ëllëg bu ñu yàlla sutura suturale bu dugal ñu ci àjjanam jooju soit la ñuy sol kon nag soit nañ koy commencé sol léegi di entraîner dugg àjjana <laughs> oustaz Thiandoum waaw ah, ah loolu moom dégg naa ko euh, kon nag coton moo gën ci yére ak soie ak lin lu tax yooyu yëpp dañoo nooy ci yaram te matière bañ ca def su doon am na produit chimique pour pourcentage bi tollul ak toll ak pourcentage yu nylon nylon moo ëpp produit chimique moo tax nylon mun nga mun nga ko sol simmi sa yaram néew yi sa yaram di xasan sa yaram génne ay picc moo tax ëpp naa sol ci ëpp naa sol ku mën a sol leen lu nylon daal nga sol ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.